initiative bi de ay tout tànk ñoo ko yëkkati woon te teg ko ci ndigal sëriñ bi muy wax jaar-jaar Cheikh Issa Diène jamhiyatun euh, tawdihi wa nasri li injaasaati Cheikh Issa Diène moom lañ ko tuddee muy jamhiya boo xam ne day boole jaar-jaar Cheikh Issa Diène di ko nettali ak ay jikkoom yu rafet yoo xam ne jëflante na ko ak nit ñu baax ñi. loolu taxoon troisième audition bi ñu tuddee ko maam Thierno Ibrahim maam Thierno Ibrahim nag doy na ci ni rakk Serigne Touba joo xam ne. wutu na ko ci yu bare bare bare bare bare digganteem ak Cheikh Issa Diène nekkoon loo xam ni lu yéeme la woon ndax bu leen sëriñ bi boolee ba bu ñu noppee gisante ci saayir benn benn benn pas-pas lañu yore benn ànd lañ mas di ànd ñu wóolante lool doylante lool Cheikh Issa ko fu kawet ànd ak moom déggal ko lool ba bi sëriñ bi demee ci tukki tukkib géejam bu yàgg boobu lépp lu Cheikh Issa yëkkat liggéey rek ci loxo maam Thierno la ko teg. ni Cheikh si daan def sax léeg-léeg am ci ñoo xam ne dañuy yebal ay ndaw di jàllale moom mosu ko def moom du mu liggéey rek ci loxo maam Thierno la ko teg mu teg ko ci njaboot gi dégg ngeen ñu ne sëriñ bi bi ñibbisee bi mu soxlaa maam Thierno moom moo dem woyu kon seen kóllëre daf mel ne gën a dëgër loolu tax ñu bis bi ngir jikko rafet yi jaaroon seen diggante ak ànd bu rafet bi jaaroon seen diggante lii nag nekk nekk initiative boo xam ne dëgg la ay tur tànk ko yëkkate waaye dem na ba nga xam ne mag ñi dugal na ci seen loxo bu baax ndax sëriñ bi dégg ni mu wax ci kii image yi na ci mi ngi koy digle mi ngi ci ñun ñëpp moo a yebal ñu ñëw. waa jërëjëf xam naa li dox seen diggante ñoom ñaar eh, du luñ mën a wax lépp waaye danañu xam ne ñaari jëmm lañu yoo xam ne eh, ndigalul sëriñ Touba boole na leen te ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk sàmm na ndigalul sëriñ Touba ci sa moroom ba ñu dund ko dund koo xam ne eh, kenn ku nekk ci ñu topp ci sa ginnaaw lay sa warugar. mooy ni nga toppee borom daaru muuti ak ni nga gëmee borom daaru muuti ak fan ko teg foofa nga war a teg maam Cheikh Issa Diagne ñi nekk ci ginnaaw maam Cheikh Issa noonu la ñuy war a def ndax boole gu ñu boole woon seen bopp ci ndigalul Serigne waa dund ko mu nekk loo xam ne euh, kenn ku nekk euh, gis na ne. li nga xam ne mooy mujj borom Daaru ci ay fanam yu mujj ni mu ko jëflanteeg euh, Cheikh Issa Diagne ci euh, batinu Serigne Touba euh, doy na ci sëkk màndarga ndax ñëw taxaw ko waajal ko ba lépp sotti te ñi xam biir rek ñoo xam ne loolu wàccaayu sëriñ Touba la waaye du woon loo xam ne lii. dama damay kese mën na mën na koo xam. ñetteelu édition bi thème bi jëm ci Cheikh Issa ak xam-xam ma bëggoon rek nga waxal ma tudd ci apport waa kër Cheikh Issa Diène ci xam-xam rawatina ci lu yoonu murid di def. waaw maam Cheikh Issa Diène ak xam-xam dafa ndax moom damay wax ni fi ngay xamee ni borom xam-xam la rek ay xaritam yi gën a fës yëpp ay borom xam-xam lañ yu ni yu ni joxoñ ay baaraam te moom bokk na si li nga xam da koo xalal boppam nee na ku ne la mën a àndal ba mu des ba mu des ñetti nit ku nanguwut sonn ak ku ñàkk fayda ak koo xam ne ab jaahil la kon moom ak taalibeem matoon na muy xaqiqa waaye sharia bi itam daf ko daa matal nuru ko yonente yàlla isa fi mu ni mubaarakan aynama kuntu wa awsaana wa awsayni bi salaati wa zakat ma dumtu xaya maanaam xawaidul islamiya daf ko daa jëfandikoo du dara du si damm waaye xaqiqa bi itam noonu la dëgëre woon nga xam ne kon di gën a baax si nitu yàlla boole woon na ko muy xaqiqa ak sharia xam-xam itam mu yitee leen ko lool suñu borom tabaaraka wa taala defal leen ko si ak jagleel goo xam ni daana wax ni lépp loo xam dafa jëm si wàllu bâtiment wala alquran nëw si kenn ku dul Serigne Touba lim si maanaam ku dul Serigne Touba nëwuli si maanaam appelé woo ko si loo xam wala loo xereñ waaye lépp nag daf ko am nag grâce à Serigne Touba ndax Serigne Touba la yàlla may mu xam lépp képp ku ko neex itam mu sotti la lim lim xam lépp moom dafa bokk si ñi nga xam ne suñu Serigne Touba dafa sotti ko ci ci ci biiram ci sariha ak ci xaqiqa moo tax xam-xamam matoon loolu ba nee nañ sax mboolem kilifa diina yi ngay dégg yi gën a mag si yoonu murit ku si mel ni Serigne Bassirou Serigne Abdou Samad nga xam ne ay doomi Serigne Touba lañ Serigne Mahamadou Fadal ñoom ñëpp daan nañ jëflante moom jëflante goo xam ne ci xam rek lay lay tegee ak bëggam xam-xam àggoon na si jamono yu yàgg yoo xam daanaka ay ay ay 1913 wala lu ko jiitu benn téere bu jafee am boo xam ñu ngi ko tuddee daayiratul maarif nga xam ne ku ñuy wax Mouhamed Farid Wujdi nekkoon dëkkoon Iskandar Égypte moom moo ko taalifoon mu nekkoon taalif boo téere boo xam ne ñu néew ci jamono boobu ñoo ko daa am xam tudd sax ba di ko am dafa jafe fekk téere boobu dañuy wax ni lépp luy matière oo xam-xam bu yitteel doomu aadama mi ngi si biir boo ñëwee si biir da nga fekk médecine fiq a ngi si biir grammaire chimique physique biologie ilmu tabiya science naturelle maam lépp luy xam-xam rek boo ñëwee da nga ko fekk si biir loolu nag ak yittewoo xam-xam ak bëggam ko moo ko jaraloon baagoon na sax si mbooleem borom xam-xam yi nekkoon Sénégal te daa bëgg téere boobu moom lañ koy àbb loolu di firndeel lenn ci ni borom xam-xam la borom xam-xam yi ñu bari tagg ko ci ci ci ci ci ci ci xam-xam ku si mel ni Sëñ Mamoor Kayre xam ne borom xam-xam la nekkoon waykat nee na ko xad usta man wa ilman wa maarifatan maanaam yow da li nga am du jeex xam-xam bi nga yor itam kenn xamul foo ko jëlee ndax bari am kaay ko ne ko waxoo baxaru xilmin moom bu doon xam-xam du amus ak toog waaye moom géej la si mu yaatu woon si lool liggéey si liggéey bu kawe boo xam ne euh, ñi jamonante woon ak moom ñëpp day fonkoon nañ ko ngir ak taalibe waaye nag fonkoon nañ ko dem ngir ak bari xam-xam. laaj bu mujj mooy fi jamono ji toll <clears throat> xam-xam repère la bu ñëpp di soxla téere boobu Cheikh Sadji wax nga ko mu ngi ci sonn uti woon ko fii ba Égypte waaye yéen tey ji yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci commission culture ak communication est-ce que bokk na ci seen naal ak seen mébét boobu ngeen moolaat ko ba génération yi ñëw mën cee jot ak génération yi. waaw lu si nekk itam ni nga waxee noonu la lu si nekk da ngay def xutuwaat xutuwa étape par étape ay ndaw lañ ñu ngi dégmal di ànd ak mag ñi mag ñi itam ñu ngi baaxee ay mbir ñu am ay xalaat yu ñu am ay xalaat yu kawe yoo xam ne jëlee la naa sax jël loolu muulaat ko waaye lu ko supérieur sax am nañ yéene def ko ndax pas-pas baa ngi fi volonté baa ngi fi li sax la waxee suñu borom la nekk. te itam ñu ngi ciy sàkku ñaani kilifa yi mag ñi dimbali ñu si li si des moom si dogal suñu borom la nekk waaye pas-pas bi. ak volonté gi ak bëgg gi moom sikk amul ni mi ngi fi ndax édition bii ñu def rek génne nañ si benn téere boo xam ni daanaka war naa toll si def nañ si mille exemplaires mu nekk ay 32 page boo xam dafa tënku si ci ci xam-xam ni mu ñëwee si lislaam ni ko ay alquran andee ni ko yonte bi wa andee Serigne Touba ni mu ko daa jàngalee maam Cheikh Issa ak xam-xam maam Thierno ak xam-xam loolu lépp mu nekk bunt boo xam ni jàpp nañu ni daal mën na nekk point pour intilaax buntu départ pour ubbi buntu xam-xam dafa dëppoo itam li nga xam ne moom la Serigne Mamadou Mountakha digle ni na ñëpp dem jàngi loolu sax ku ko dégg tey jëfe ndigal bu la fekkoon nga jeexal sa tër da nga war a tàmbaliwaat ndax xam-xam amul fu muy yem moo tax daal buntu la boo xam ne ñu ngi si yow mbokk jullit yëpp di ko ànd ak taalibe yëpp fas yéene itam di si yaakaar seen ñaan fas yéene see dem dem loo xam ne daal bëgg nañ fu fi mag ñi yemoon bu ñu ko mun munta dab itam maanaam ñu yaaru si bañ xam ne def nañ suñu suñu suñu warteeku